suñ saali waxoon na ko nee woon na ambassadeur France bi boo génnee sama kër bala ngaa bala ngaa doon ay maître école français kon suñ bi tere ko kenn mosu leen dégg suñ bi tere ko école publique yi nag bañ ko fa tabaxee siñ saali woo ko tëjlu suñ saali woo ko tëjlu ba mu ko tëjloo it lam ca waxoon leer na dane leen woon bu ngeen waree ci réew yi bari na lool ay dëkk yoo xam ne amuñu école ña nga yuuxu di ci rajo gi di wax ak jàmba naan nañ leen tabaxal école ngeen jël leen fa ñoom ñoo ko soxla ak ñun ko soxla ngeen ñëw di ñu ko tabaxal kon am na leen lu mu ci jamono xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci kanamu ñëpp la booba ministère bu ñuy wax Kalidou Diallo moo fa ñëw ci suñu baara wax ak moom ne ko dama bëgg ñu ubbi ko suñu baara ñëw laaj ma ci ba ma ca laajee ma ne ko siñ Saliou de moo joxe woo digal nañ dañ ko tëj keroog bu ngeen fàttu ko wala ngeen dellu ci archive ma ñu maa def discours ba ba wane ne